ou bien c'est une soirée de recueillement d'abord bu ñu ko fàtte nous avons été doublement affligés nous avons été affligés parce que beaucoup de sang a coulé dans ce pays à cause de ce projet donc une pensée pieuse à l'endroit de nos frères et sœurs qui ont été lâchement assassinés par le régime de Macky Sall. li président Ousmane Sonko waxoon moom laay wax parce que moom mooy sama référence ci politique dafa ne saa yu xëyee devant lui il a le portrait des quatre-vingt-dix quatre-vingts à quatre-vingt-dix personnes assassinées par le régime de Macky Sall nee na saa yu xëyee ñooñu lay jàkkaar loolu ñooñu nag acte bu ñu posé ñun fii waa PASTEF les patriotes acte bu ñu posé te xalaatuñ leen fa ñu tëdd yàlla leen yàlla yërëm on on les aura trahis nañu bàyyi xel ci ñooñu moo tax ma ni tey au-delà de tout c'est une journée c'est une soirée de recueillement bu ñu ko fàtte sànq nee naa leen nous avons été doublement affligés à travers des assassinats des emprisonnements salle bii bu ñu ko xoolee quatre-vingt-dix à commencer par moi quatre pour cent yëpp ils ont fait la prison fii ñi ma fi gis ñii ñëpp ci kanam presque ils ont fait la prison et je connais beaucoup de jeunes ici qui sont là et bravo à vous la jeunesse patriotique du Sénégal vous vous êtes battus tey c'est grâce à vous la jeunesse patriotique du Sénégal que tey le président basiru Diomaye la situation la situation c'est des ce sont des gens qui nous ont doublement assassinés démb li xew li ñu dégg ça dépasse l'entendement bu leen ko fàtte moo tax man je demande à tous les Sénégalais au-delà des patriotes qui sont ici lundi bu ñu xëyee ne ñëpp dem tribunal déposer une plainte contre le régime de Macky contre Macky Sall je vous donne rendez-vous lundi au tribunal de Dakar na kenn ku ne bind sa plainte ñu plainte le ñu plainte Macky Sall ak ses ak son ñun nag ñun nag ñun nag tey nous devons être fiers de nous-mêmes nu devons être fiers de notre guide éclairé le président Ousmane Sonko sama benn jigéen Rougui Sow Rougui je pense qu'elle est président présidente coordonnatrice de euh, euh, de l'agence qui gère les marchés daf ma ni ñun yàlla daf ñoo goreel ci politique li mu wax c'est très profond yàlla daf ñoo goreel ci politique Sénégal politique bu demee ba egg fii ba nit ñëpp di ci bàyyi xel c'est grâce à nous et au premier chef grâce à notre guide le président Ousmane Sonko comme nag comme nag yàlla daf ñoo goreel ci politique nañu fexe nañu fexe ba ngor boobu ñun ñii kenn ku ci ne nga téye ko ñu transmettre ko à toutes les générations qui vont venir ngor googu ñu transmettre ko à nos enfants nos enfants transmettre ko à leurs enfants ainsi de suite mu bañ a arrêté gëmuma ni dinañu échouer parce que man dama gëm li président Ousmane ko wax dafa ni malgré toutes ces difficultés là nous allons réussir man gëm naa ni dañuy réussir. yàlla bi nga xam ne moom moo ñu taxawu tey ñii di fi wax ñu bari nekk ci biti bindoon épitaphe Pastef est mort CJ Pastef mu baroon mu bari woon ay nit ñoo xam ne yaakaaru woon ñu tey dina ñëw au pouvoir. ñun ñu ànd ak suñu ngor madame Maimouna Dièye la président wax na ko léegi ànd ak bëgg suñu réew parce que fii ñi fi toog ñii ñëpp moo tax ma ne yàlla daf ñoo goreel ci politique parce que fii ñi fi nekk nii ñëpp kenn ku ci ne tey jii nii bu la neexoon yaa ngi ci leneen doo tal wàcc ci mbedd mi di xeex doo ko tal mais dañoo taxaw xeex yàlla nag doomu daara yaa ngi nii xam nañ li may wax woy muñkat yi la àndal inna allaha maa sabirin ñuy xeex di muñ jàkkaarlook Macky Sall yàlla jox ko doole bu ne ñun ñu jël suñu lépp wékk ko doole yàlla loolu moo tax ñu am ndam tey buñ ko fàtte ma leen di ñaan ngeen xam benn mbir wax naa ko sànq projet bi mi ngi soog a commencé bu ñu demee ba suñu seeti nag ñu toog yàlla nañ ko fekkee ñu yor ay yat suñu sët yi toog di ñu woyal naan jaaraama Mamboy bu boobaa la ñu xam ne projet bi am na lu ci jot a mat ñu ngi jëm ci échéance yu am importance ma ni les crimes financiers yi ngeen di dégg nii ñii ko def nii malheureusement pour le moment parce que à partir du 17 novembre les choses vont changer am na ci ñoo xam ni dañoo am immunité parce que ay ministre la ñu déglu leen bu baax li may wax c'est important am na ñoo xam ni ay député la ñu nar a doon parce que dañuy am immunité te suñu yoonu réew dafa amu nu mu tëddee ñun meluñu ni Macky Sall duñu violer loi mais la meilleure façon maintenant ñu changer les lois pour que ces crimes financier là ñu fexe. ba ñi nga xam ne perpétré nañ ko ñu yóbbu leen ci yoon parce qu'ils sont certains sont protégés par la loi juriste yaa ngi fii xam nañ la may wax il faut que ñu am la majorité à l'Assemblée nationale la majorité à nationale qu'importe ki fay nekk muy Abbas muy Tata ne Dièye muy sama sëriñ bu baax bi muy Ismaïla ku mën a nekk Assemblée nationale fii baax na pour man dama gëm ni man gënu gënuma valeureux ñi nekk fii di xeex pour nekk assemblée nationale ñun ñëpp war nañoo mën a nekk assemblée nationale méritant issi tout le monde est méritan issi képp ku dem assemblée nationale xamal ni peut-être mérite la en tant que patriote mais ëppale woo mérite ñi si des donc nañu fexe naka la ñuy def ba am majorité à l'assemblée nationale parce que toutes les transformations yi ñu bëgg def mënuñu ko def tant que amuñu amuñu majorité à l'assemblée nationale il y a énormément de projets de loi les ministre là ñu ngi fii toog yoo xam ni assemblée nationale la war a jaar te il faut ñu am majorité utuñu ko nag pour am majorité mécanique te dañ koy wax sénégalais yi bis bu ñu demee assemblée nationale du ngeen gis ay député yu tàccu ay ministre de man Abass Fall du ma tàccu benn ministre bu ñëwee assemblée nationale. ministre bu ñëw assemblée nationale ma sœur Maymouna Dièye elle là je je l'aime beaucoup bu ñëwee je vais lui le projet parce que looloo taxoon ñuy on aura une autre forme d'Assemblée nationale qualitativement ku ci mérité nag boo ñëwee ñu tàccu la daañu la tàccu daañu la félicité daañu la encouragé loolu la ñuy ñaan ñun patriotes yi ñu def benn say parce que yàlla boobu ba léegi mu ngi ñuy jàppalu parce que dañoo nekk benn bis bu ñu demee nag ba commencé tas lu leer la leen wax yërmande bi yàlla def ci projet bi suñu demee ba jubatuñu da koy dindi maa leen ko wax loolu sirru la nañ leen góorgóorlu tous unis ensemble pour un seul objectif développer le Sénégal bu ñu rusloo suñu njiit yi nga xam ni président Ousmane Sonko sànq la woote baat bi sax c'est à peine nga koy dégg tellement dafa sonn du lekk du naan président Bassirou Diomaye Faye commencé na Bidjaaw et des jeunes de rien du tout lu tax c'est pour que ce pays là se développe donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant bëgguma guddal ma leen di fàttali le projet buñ ko seetaanee suñu xel dina tooy mais dinañu encourager pour que li taxoon ñuy xeex incha allah ñu réussir que pour le bien du Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullah merci Dakar les producteurs du film Le Projet tiennent à remercier particulièrement les sponsors qui les ont aidés à réaliser ce film et à faire que cette cérémonie ait lieu aujourd'hui. Il s'agit de la Loterie nationale sénégalaise, la LONAS, le port autonome de Dakar, la SNR 6.9, l'ANPEJ, Monsieur Ndenembo, directeur général du COUD, et puis Monsieur Ibrahim Atiam, Monsieur Walid Boyan, qui ont été à leur côté du début à la fin pour les conseils. mais on va marquer un arrêt pour des remerciements particuliers ñi def film bi dañu bëgg ngeen jóg ngeen tàccul kii ñuy bëgg a tudd muy Jibi Njaay nee nañ nag moom moo téye seen loxo début ba fin wutal leen ñu leen financé jàppale leen xelal leen kon maa ngi leen di ñaan ngeen defal ko standing